jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Future Média mbokk yi teewlu xibaaru marax yi ponk ci gën a fës ñetti département yi ca Sigicoor askan way yëngu ca wàllu wér-gu-yaram wàccoon nañu ca mbedd ma di euh, ñaxtu la ñu bëgg nag mooy ñu fay leen euh, seen i euh, li nga xamante ni moom moo di seen i salaire ay arriérés yoo xamante ne amoon nañu ko mat na juróom benn weer ci tey jilee gannaaw boobu tamit ñu gis ni personnel ba nga xamante ni nii dañu kaa jëlee ca ñoom daal di koy affecté coopération nippon ak JICA leen métti la ñoom yaram di sàkku tamit ñu tabax fa ab bloc opératoire ñu wax it tamit ci syndicat unique bi ëmb liggéeykat yi ci wàllu trésor ñoom nag nee nañ ba moyul euh, daañu dem grève loole la ñu wax ndax li leen métti bokk na euh, ci poste comptable yi ñu ne amul benn kaaraange gannaaw loolu itam ñu gis ni euh, logement yu aju ci trésor public yu ca bari màgget na ba jéggi dayoo commune yu Gandiol ak Gandon ñi ngi ci jafe-jafe li ko waral nag mooy taw beeg jafe-jafe yi leen indil ba xayma ëpp na ñaari junni euh, ton di dem lu aju ci wàllu mbënn mi ñu gis ni métti na euh, dinañ dem ba fële ca diwaanu euh, maatam ndax jëwriñ ji nañu ko doon waxee yegg na tey ji ca diwaanu Matam ngir rek seeti ñi nga xamante ni ñoom ñoo lorule ci mbënn mu métti moomee fa ñu naan udalaay dinañ ci jokkoo ak sunu naataango Ali Bandel ñaan lu aju ci wàllu mbënn mi sax ne nañ lu toll ci ñaari milliards kon daañu ko teg ngir xeex ko bu baax a baax dinañ wax ñu woon waaye fi ne nii juróom-ñaari magistrat ñoo fa nekk ku ñu naan Boussa Diaw Fall magistrat ba ak euh, professeur bi ci wàllu droit di Seydou Nourou taal ñoom nag xëy nañu waat ni kii tey ji njàng meek euh, njàngale mi résultat concours euh, général 2017 fësal nañu ko élève bi ñu ci gën a ràññee nag ma nga fekk baax ca Prytanée militaire waaye ci wàllu daara yi moom Seydou Nourou Limamoulaye lycée Limamoulaye kon moom moo jël raw gàddu gi dinañ wax itam ci salon de l'habitat GFM Entertainment fexe ba askanu Sénégal euh, mën a xam logement sociaux yi ak njëg yaak yooyu ndax loolu bokk na euh, ci li nguurug Sénégal di euh, xeex bu baax a baax mbokk yi mooy ponk yaatal gi léegi léegi. jaa ngeen jëf ci ànd beeg euh, télévision Futurs Médias ñu euh, tàmbali xibaar yi euh, fële ca diwaanu Matam la ñu jëm jëwriñ ji nag ni ñu ko doon waxee ni ki démb lañ ko fa doon xaar waaye loole mujj la sotti ba tax na tey jii la fa mujjee dem muy ki ñu dénk biir réew mi gannaaw jafe-jafe yooyu fa amoon ca diwaanu Matam Ali Bandel ña la ci jokkal Ali Bandel maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Ali Bandel ñu ko waxee rek jëruñ ji mujj naa yegg si foofu ca diwaanu uh, maatam rawatina ak Oudalaay googu nga xamante ni nii uh, taw bu métti ba am na fa indi na fa loraange yu bari. yegg si na kon euh, gannaaw euh, bi ñu ko formé démb Abdoulaye Daouda Diallo ministre de l' intérieur ànd ak ki nga xam ni moo di Papa Gorgui Ndong yore wàllu inondation Anta Sarr Diako mi ñu donc délégation solidarité nationale hélicoptère euh, bi ñu ko waxee woon rek moom la ñu indee fii ci aérodrome bu Ourossogui laata kon ñuy naaw ak gouverneur ak président conseil départemental bu Ranérou daal di kon yegg fi nga xam ni moo di Oudalaye bi ñu ba ñaari waxtu ci bëccëg jot Abdoulaye Daouda Diallo nag jébbal njaalu njiitu réew mi président Macky Sall ak mboolem gouverneur gouvernement bi woon na waa Oudala itam tiis bi nga xamante ni moo leen dal sénégalais yëpp yëg nañ ko ak ak ñoom loolu itam wax na nag lu jëm ci wàllu jafe-jafe nga xam ni ñoom toll nañ ko nemeeku ren ci nawet gi ndaxte bi yoon mooy ñaari taw dong la ñu jotagum fii xam la na nag mesures yooyu nga xam ne gouvernement digle gouverneur bi digle woon na ko ñu bàyyi dëkkuwaay banko yi moom it gën na kaa déggal bu baax a baax waaye ministre de l'intérieur laata muy jóge ca Oudalaay jot naa joxe xibaar liste yi nga xam ni day lëkkale mbooleem commune yu fare ci département bu Ranérou ak commune bu Ranérou mu di nag xibaar bi nga xamante ni askan wi ñu fekk foofu donte ñu ngi woon ci tiis rafetlu nañ ko lool ndaxte ñu ko doon wax ci suñu xibaar yi mujj département de Ranérou rawatina zone Oudalaye ak li ko wër yoon moom amu fa du piste du euh, goudron kenn waxaale ko foofu lu jëm nag ci wàllu nawet gi itam xamal na ni comité régional bi nga xam ne gouverneur moo ko jiite dinañ yokk seen ay jumtuwaay rawatina ci wàllu moyen matériel ba sax ci wàllum carburant ngir kon fexe ba fépp nga tombé am na fa équipe de secours yi rawatina waa sapeur pompier yi mun fa dem takk der yi sax ministre de l'intérieur jaajëfal na leen bu baax a baax rawatina gendarmerie nationale ak waa sapeur pompier eaux et forêts yi nga xamante ni bi coow li amee léegi ñoom dong ñoom munoon kon yegg foofe nga xam ni moo di udalaay askan wi itam ni ma ko waxee léegi ñoom it ci tis gi génn nañu wax dëgg yàlla rafetlu nañu ni nga xamante ni noonu la nguur gi yabale ab délégation ak condition yu métti yëpp ngir kon ñëw bokk ak ñoom seen tis bi ñu di ko jaajëf lu baax Ali Bandel Niang cant ak ngërëm euh, ñeel na la Ali ñaa ñu doon jokkoo moom ca diwaanu euh, Matam la aju sax ci uddalaay googe ak jafe-jafe yi nga xamante ni nii euh, taw ba indi na ko fa taw bu metti boobee ci fàttali juróomi doomu aadama ñoo ca ñàkkoon seen bakkan partie de la réforme mi ngi sàkku nag ci gouvernement bu Sénégal mu def kéemtalaay kàttanam ba gën a jëmmal programme bi ñu duppee PUDC ndax loolu bokk na ci li tax yenn gox yi nga xamante ne nag danoo làkk lool ñu gën leen a mën a euh, taxawu euh, ci wàllu euh, jumtukaay ci wàllug koom Amadou Diallo moom mooy secretaire politique nationale bu parti de la réforme ñu teewlu ay kàddu ak Cheikh Anta Diop. drame bi am maanaam ay kër yu mab la fekk nit ñi tëdd mab seen kaw miir yi malheureusement donc ñi mujj si kii mujj si fàttu Oudallaye ku xam ku xam département Ranérou su la waxee Oudallaye xam ne dëkku diina la moo tax këru diine yëpp. naqar naqaru nañ euh, naqarlu nañ li fa xew euh, dama bëggoon tamit ñëwaat si nguur gi lu mu def jéego lu mu def ndax euh, son excellence le président de la république ma Sall xam naa bi mu yëgee tiis bi ak naqar bi dafa dépêché benn délégation de niveau bu ñuy seetaan rek bàyyi lépp ak nguur gi population bi si boppam nañu jóg jàpp si xam ne li chaîne de solidarité bi nga xam ne sénégalais bu nag war na ko rawatina waa département Ranérou te ku gis Ranérou tey nu mu mel nawet bi ku gis Oudalaye nga xam ne suñu oto bu njëkk dem mënuloon accès si dëkk bi ndax ndox mi nu mu bare te amul wan amul tali amul piste euh, ñaax nguur bi euh, maanaam PDC taxaw na mais nañu accéléré côté zone inondable yooyu ñu gën si bàyyi xel defar tali yi si nu mu gën a gaawee ñu des ci jafe-jafe taw bi ba tey commune bu Gandon ak Gandiol ñoom it ña nga cay jafe-jafe rawatina ak ci wàllu xorom boobe nga xamante ni nii ñu bari ci askan wa ci la ñuy yëngu nee nañ nag li ñu yàqule euh, ren euh, bari na ndax euh, boo moyul sax nee nañ dana toll ci ñaari junni ci ton naka noonu ñu ngi sàkk kon ci kilifa yi daal ñu gën leen a dimbali ci wàllu wooye muy askan wi nga xamante ne nag ñoom ñooy yewoo ci lebaar Gandiol jàpp bexaar leeral li dañ ci ànd ak Ousseynou Diop ci commune bu Gandon askan wi borox lii di xorom si rax ca dolli di ko def ay gaar jamono jile ay jafe-jafe la ñu nekk ñoom ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk yi di Bexaar ngay ngay Gandon lebar ak Ndiébène Toubé ginnaaw taw yu métti yi nga xamante ni wàcc na ci commune yi seeni xorom si dafa mujj seey ña ca des wut ay charrette ngir mën a rawale lii di xorom si di ko def nag ci anam yu metti waaw xorom si dafa dafa seey ci biir ndox mi waaw parce que bu bu dex gi xasee rek. lu mu fekk ci biir lépp lay lépp lay jeexal ndax lu mu néw néew néew fii de chaque année euh, daanañu fi génne du moins trois mille trois mille cinq cent au minimum maximum quatre mille tonnes. at bile nag taw yi dafa bette ci Gandon ak Gandiol ndaxte jamono jile daan nu ko woon xaarandi tax nag lañ daan am ci rendement ren jile dina wàññeeku. xorom bi ci biir ndox mi amuñu charge yu doy du ko génne loo war a fay vingt cinq mille te yaa ngi fay cinquante mille te amoo pexe parce que mën na ko yenu di ko génne. man na ko yenu di ko yóbbu ay sar rek ñu mën dimbali ñu wàcc xorom bi te liggéey bi metti na. taw yi am ci gox-goxaan yi nag dina waral njëgu kilogramme bu xorom bi dina wàññeeku lool ci ñi nga xamante ni ñoo ko daan wuti ngi wax sax ni lu mu tuuti tuuti téeméer ci ay million dañ ko ñàkk. waaye xam nga ndox mi tey ku ñu fi ma fay saako fukki dërëm dañ ko jaay ndax boo ko deful mu yàqu te génn wàllu kasara moo gën kasara waaw nga liggéey nag ba dee te doo ci am jariñu doo ci yëg sa bopp doo ci dam Pine li fi yàqu parce que dañu wax soixante mais parce que euh, parce que li fi yàq bari na te li fi des fi dina lépp day dig si biir tey tey tey waaye fii bu fanaane bu fanaane bu ngoonee li lépp léppay niil. taw yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko ci ñaari fan yi ñu génn ci Gandon ak Gandiol tax na askan wi ñoom tiit nañ ñu ci bare kopp lañ daan dugal ci wutum xorom bile waaye nag ak ndox mu bare mi nga xamante ni wàcc na ci gox goxaat yi le tax na seeni yaakaar daal yàkkeeku Ousseynou Diop ñu di ko jaajëfal lu soxal sax ndox mu bari moome mbënn mi jëriñ di dénk wàllu dëkkuwaay nag euh, nee na nguurug Sénégal dana ci taxaw ñaari milliards ci suñu koppar kon daanu ko tekk ngir xeex mbënn mi naka noon it euh, fàttali na de décennal bi nga xamante ni nii euh, xeex mbënn mee ko tax a jóg te koppar yi ñu xayma ko ci juróom-ñaari téeméeri milliards léegi tey mu daal di sotti Diène Farba Sarr ñu teewlu ko ak Alhassane Ba. man nag inondation yi c'est vrai que deux milliards yi euh, dina doy parce que xam nga dafa am un plan décennal boo xam ne il a sept cent milliards plan décennal boobu déjà nous sommes en exécution de trente pour cent trente cinq pour cent soo gisee Diourbel soo gisee Diourbel def nañ fa ay ay station de pompage nga jël par exemple euh, Bambey def nañ fa ay station de pompage pour deux milliards déjà à Touba nous sommes à sept milliards Dakar nous sommes presque à trente quarante cinquante milliards dans la banlieue nga dem Kaolack def nañ fa ay projection Kaffrine dëkk yi nga xam ne yëpp loolu moom les grands investissements la léegi nag la MAP lu ñuy wax matrice d' action prioritaire mooy accompagner le plan décennal plan décennal bi temps bu nga xamee ne réalisé nañ ko yëpp dans dix ans MAP du amati parce que da fekk ñu couvrir dëkk yëpp loolu la actuellement nag y a ce qu'on appelle des inondations résiduelles ñun on fait de l' assainissement compensatoire ñoom suñu jaaree ba pare ñun ñu jaar ak lu ñuy wax l' assainissement compensatoire ñoom li ñu deful ñun ñu def moom la ñu def actuellement et puis di tabax des bassins de rétention des bassins de dissipation des digues de protection des accélérateurs des des des ralentisseurs de crue yooyu yëpp ñun. ni euh, niñ koy xewoon ci ponk xibaar yi ca diwaan Sigicoor euh, ñetti département ya ñuy yëngu ca kër docteur ya wàccu nañu ca mbedd ma di euh, ñaxtu la ñuy laaj nag mooy juróom benn weeru payoor yoo xamante ne dafa tardé payoor yooyu nag soxal personnel bi nga xamante ne nguurug Sénégal moo leen jox coopération Nippon ak JICA nee nañ nag boo moyul daañu gën a yëngu-yëngal leneen li ñu bëgg tam mooy ñu tabax ak bloc opératoire ca Bignona ñu teewlu Ousmane Faye moom mooy secrétaire général bu SUTSAS fële ca Sikicoor ci micro Boubacar Dias yi. Euh, dañ doon feddali suñu kóllëre ak suñu mbokk liggéeykat yi nga xam ni euh, ci wàll wi ñu moom gouvernement moo leen recruter woon ci benn programme bu ñu tudd programme JICA et que depuis juróom benn weer ñu ngi leen sànni ci àll bi amuñu salaire pour que dëkk bi ak kilifa yi kenn bañ ni yëguma woon te tey ji jàpp naa ni kenn mënul taxaw ni yëguma yëg nañu est-ce que dinañu def est-ce que duñu def kooku mu ngi suñu kanam te li ci kanam weesuwu li bët bu ñu toogee ab diir gisuñu lu ñu def di ngeen ñu gisaat di ngeen ñu déggaat te xëy na ci yeneen anam lay doon yu nga xam ne mooy ëpp lii. Euh, jàpp nañ ni li ñu metti fii. Euh, problème fond de dotation yi loolu nekk na ci région bi problème bu nga xam ne dafa law fépp foo dem nit ñi dañuy sonn dañu soxla. bloc opératoire bi Bignona ñu defar ko ubbi ko affecte fa personnel boole fa benn ambulance bu nga xam ne day nekk une ambulance de soutien lu tax parce que tey Bounkiling buy évacuer Ziguinchor la jëm si Diouloulou buy évacuer Ziguinchor la jëm si Thionckassil buy évacuer Ziguinchor la jëm si ñoom ñëpp dañuy jaar Bignona Bignona est à vingt cinq trente kilomètres de Ziguinchor oto bi ak lu mu daw daw mënul def moins de vingt minutes pour egsi fii en vingt minutes mën nga cee sauver bakkan yu bari mais ci kaw nga am structure bu nga xam ne nit ñi dañuy egsi fekk fa lañ fa war a fekk fekk fa ñañ fa war a fekk ñu mën leen a taxawu taxawaay bi ci war. Euh, syndicat bi ëmb liggéeykat yu euh, trésor euh, nee nañ nag boo moyul daanu dem grève ña ngay dànkaafu ndax li leen métti bokk na ci li nga xamante ne rek moom mooy poste comptable yu trésor yi nee nañ benn kaaraange amu ci waaye tamit yenn logement yu trésor yi yenn dëkkuwaay maanaam màggat na màggat goo xamante ne nii dëkk ca sax wóoratul Alassane Ba Modou Diop. mu ni kon li ñuy sàkku bëri na wante bu liggéeykat yu trésor fas yéene ci am ndam ñu ne nag lii la ñuy sàkku ñu xoolaat ko. ñàkk sécurité bi am ci sunuy service muy service yi nga xamante ni moo nekk à Dakar muy poste comptable yi nga xam ne ñu ngi ci région yi gis nañ fi sunuy service ñu attaqué leen ñu ray agent suñuy caissier ñiy manipuler des millions des millions disons même des milliards yenn saay mais. amul kenn si ñoom koo xam ne ñu ngi lay fay indemnité bu bu bu conséquent affectation yi aussi seetlu nañ ko de plus en plus trésor ñi ngi affecté ay agents ñu ngi ñëw di feesal bureau yi di di di di di dégrader conditions de travail yi. y aussi la question des contractuels ñi nga xamante ni ñi ngi trésor depuis ay ati ati at nit ñi di recruter ay ay ay ay ñeneen alors que ñu bàyyi ay journaliers. ak ay contractuels dans des situations précaires ñu bàyyi leen trésor. ci wetu loolu nag ñu nemmeeku ne tabax yi màgget na yu ci bëri nag. nara daanu ñu sàkku ñu defaraat ko. teel nañ ko de plus en plus bâtiment yi ci trésor foo dem mi ngi en état de délabrement très avancé méngoowul ak mission yi nga xam ne trésor moom lay mëne mën naa la jox exemple trésorerie pairie régionale bu Saint-Louis bi nga xam ne mi ngi en état de délabrement très avancé euh, daanaka euh, mën na daanu tey wala suba donc il faut que nit ñi jël mesure balaa leneen di am. li ñu bëgg nag mooy seen revendication bi kilifa yi gestu ko ba taxaw ci. wante bu loolu amut nag ñu fas yéene nag amal ab plan d'action. wax nañ autorité yi li nga xamante ni mooy suñuy préoccupation buñ ko jëlul en charge syndicat bi écarté wul déposer préavis de grève syndicat bi écarté wul def sitting syndicat bi écarté wul bépp euh, moyen de lutte boo xamante ni loi bi permettre na ko ko. ñu di ko jaajëfal bu baax Alassane euh, Ba ci weeru euh, sulet bi nag euh, laata muy jeex kon laata weeru sulet bi di jeex daañu jëlaay matuwaay ci égout yi nga xamante ne nii amul kubéer égout yooyu nag daanu ko fàttar ñi dindi salte bi ba mu set wecci directeur général bu office national bu assenissement bu Sénégal moom moo ko xamle Alioune Badara Diop naka noonu di sàkku ci askan wi nag ñu bañ a jëlati benn salte di ko defeti ci yooyee égout ñu teewlu ay kàddoom ak Cheikh Tidiane canal yooyu su ngeen gisee curage bi door te curage boobu sax si yoon warul mën a am ndax curage canal yi defuñu ko pour muy jël ay mbalit ay ndox la war jël mais puisque mbalit dañ siy fees moo tax ñuy xaar toujours ba nawet bi jege maanaam weeru juin ak weeru juillet pour ñu koy curer ndax suñ ko teeloon def mbalit yi mën na si ñëwaat maanaam liggéey bi ñu defaroon du am euh, résultat yi ñu si xaar mais xamal ni déjà curage bi door na te comme ni ñu ko waxee suñu ministre si wax ko balaa mois de juillet di jeex curage canaux yi si Dakar yëpp daan ko pare. Euh, tey ci alxames ji euh, résultat yi tukkee ci concours général 2017 fësal nañu ko jëriñ ji di Serigne euh, Mbaye Thiam moom moo ko fësal ci atum 2017 ñu ne nag ndongo bi ñu gën ràññee ci concours général boobee mu jël raw gàddu ga ma nga fekk baax fële ca Prytanée militaire waaye ci wàllu daara yi nag lycée Seydina Limamou laay bu waaye moo jël raw gàddu gi Fatou Bintou kon Thierno Laurent Mendy concours général tey ji nag wax nañu li nga xam ne moo di ay résultat am mu jàkkaarloog taskatu xibaar yi Serigne Mbaye Thiam di jëwriñ gu yor wàllum jàngale mi fii ci Sénégal di ñu wax meilleur élève bi nga xam ne moom moo génn ci concours général bi lii. ren jii ñu gis ne xale bi nga xam ne ci classe première moom moo ci raw mi ngi tudd Sami Davis Yann Obanja. moom mi ngi nekk élève prytanée militaire Saint-Louis. ñu jàpp ni lim gi nga xam ne ñoo doon am ay raaya ak tamit di am ay distinction ren dafa yokk. ren ji li nga xam ne mooy candidat yi nga xam ne ñoom ñoo bind woon ñetti junni la ak ñaar fukk ak ñett waaye ñaari junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom. ñoom ñoo teewoon pour def jongante bi biñ ko defee ñu gis ne xale yi nga xam ne am nañu distinction maanaam am na raaya bu ñu leen di jox téeméer lañu ak ñeent fukk ak juróom-ñett lycée Limamou Laye moom nag ci école yi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci concours bi moom moo ci jiitu am na lu toll ci 21 distinction ak tamit 53 virgule 25 points. soo boolee ñaari ñaari façon jàngale yi enseignement technique ak général ki jiitu mooy lycée Limamou Laye bu Géejawaay ki ci topp mooy Prytanée militaire Charles Thioréré bu Saint-Louis ki ci topp mooy maison d'éducation Mariama Ba bu Gorée. wante na jàpp nañu ne bilan bi taxu koo demee noonu ndax bu ñu xoolee li nga xam ne moo di prix en philosophie ren amul Serigne Mbaye Thiam di ñu wax lan moo ko waral la. ñuy naxarlu li nga xam ne amul benn raaye boo xam ne bi joxe nañ ko ci philosophie ak citoyenneté et droit de l'homme ci classe de terminale. moom cérémonie bi nga xam ne moom la ñuy jox ndongo yi seen i raaya ña ko fas yéene def fee centre international de conférence Abdou Diouf mu di CICAD le 20 juillet bi ñuy dëppmal. kañ ko dara jale nag mu di Aminata Sow Fall ñu jàpp ni ab référence la ci xale yi. coppite yi ñu waxoon ci wàllu yoon fii ci Sénégal ñi ngi koy jëmal ndànk ndànk conseil euh, constitutionnel lim nga juróomi sage la waaye fi mu ne juróom-ñaar la ni ñu ko waxee euh, tey nag am na ñaax ñu ca dolliku waat nañu ñoom ñooñee bokk na ci magistrat bi euh, di Bousso Diaw Fall ak ki nga xamante ni nii xam-xamam màcc na ci wàllu droit international muy Seydou Nourou Tall waat nañu nee na nag li leen di xaar xam nañu ko te muy nekkal yoon fii ci Sénégal Mame Birame Diouf ak seen prestation serment bi ñu def gannaaw bañ leen nommé ñoom nag ñoo nañ kon àgg ci sommet pyramide judiciaire muy conseil constitutionnel soxna si di Bousso Diaw Fall ak professeur Seydou Nourou Tall ñëw nag di gën a yokk liggéey gi nga xam ne ni bànqaas bi mu ngi koy amal jóge ci juróom dem ci juróom-ñaar ci ay sage yi fa ne. yombul bi ñu nekkoon tam yombul 36 euh, du benn bés musul yomb. waaye loolu ñu doon def foofu ba yàlla indi nu fii moom la ñuy continuer di ko def waa xam nañu responsabilité bu metti la mais yàlla nañu yàlla jàppale gunge nu tette nu ba li nu ci yaakaar ñu def ko loolu rek lañ ci am. xam nga lu baax du oyof mukk lu baax day toujours day jafe lu yomb kenn bëggu ko kenn bëggu lu yomb. lu jafe nag évidemment dañuy def lu ñu mën ay nit lu ñu rek ah du ñu yàlla dañuy def loo xam ni droit bi loolu la santaane moytul droit bi lu mu tere. gannaaw seen profil ak seen jaar-jaar yu nga xam ni kon président conseil constitutionnel di Pape Oumar Sakho def na ko rafetlu euh, seen liggéey ñu xam le ni ñii nag dinañ teewal bu baax justice ndax wane nañ ko bëgg ak léegi liggéey boobu sax ñu leen di xaar ñoom yi ñu xam ne ni yoon dañ ko topp. lu diis la parce que ñëpp xam nañu conseil constitutionnel nu mu mel soo defee décision bu baax ñoom ñu wax soo defee décision beneen décision ñu wax. mais lu ñu seet toujours mooy donc jiital yàlla toujours si li ngay def président am na kóolute ba mu teg ñu ci conseil constitutionnel daañu montrer aussi kóolute bi vraiment aussi en reconnaissance du peuple sénégalais aussi. comme j'ai l'habitude de le dire à mes jeunes collègues prenez les escaliers ne prenez pas l'ascenseur très tôt parce que ascenseur bi day gaaw waaye mën na am ay pakk yu ci ne waaw mais boo defee ndànk rek benn benn. lu la yàlla séddale rek da nga ci jot loolu rek laa leen di digal. justice Sénégal ci nii di gën a am doole liggéey gi nga xam ni conseil constitutionnel mu ngi koy amalit war a gën a amal njëriñ askan wi. dañu koy jaajëfal euh, Mame Birame Diouf salon de l'habitat door na fii ci euh, Sénégal tey ci suba la ubbi salon boobee ci euh, place de l'indépendance GFM mën moom moo daal di kon amal boobee salon jëriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk renouveau urbain ak dëkkuwaay Diène Farba Sarr ma nga fa woon di rafetlu nag bu baax a baax salon bi lee ndax nee na loolu mën naa tax askanu Sénégal ñu xam dëgg-dëgg lii di logement sociaux yi maanaam lan lay jar dëgg ñu teewlu ko moom Diène Farba Sarr ci micro Alassane dana permettre vraiment population yi ñu xam logement yi ñaata la ñuy jar ak nan ngay def pour jot ci logement yi parce que loolu c'est très important parce soo nekkee sa kër rek doo xam logement yi loolu dafa nekk loo xam ni vraiment jaaduwul et donc moom mu ngi ciy dimbale. lii ma bëgg a wax encore mooy que depuis que le président Macky ñëwee fii je pense que dafa am beneen politique boo xam ne teg nañ ko fii politique bi mën nañ ko gisee ci ay fànn yu bari léegi soo demee par exemple euh, lu ñuy wax foncier suuf si bu njëkk pour nga am ko problème la woon parce que en fait gouvernement yi fi ñu nekkoon duñ doon accompagner les promoteurs xam nga suñu la accompagner wu les promoteurs publics comme ay SICAP comme ay SNHLM mais suuf si liñ liñ dañ koy jënd suñ ko jëndee bu a tabax mais duñ ko mën a jaay lu yomb léegi nag ñun dañuy joxe suuf si gratuitement pour loolu gis ngeen jam Diamniadio gis ngeen Lac Rose fii ba ay quelques diir rek da ngeen gis Déni Biram Ndaw da ngay gis yéen jag saw bambilor daga xolpa bi nga xam ni vraiment au moins c'est mille huit cent soixante-dix hectares teewoon na fa moom it tey ci suba ci salon boobee muy euh, président directeur général bu groupe Futur Média Youssou Ndour ñu rafetlu nag bu baax a baax ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo tax tey salon boobee am GFM Entertainment ànd ceeg Dieynaba Seydou Ba naka noon it euh, la muy euh, sàkku rek mooy askan wi nanu gën di jege lu ci mel ni xeetu salon yooye ndax loolu dina leen dimbali bu baax a baax ci tey ji bu ñu bëggee kër fan la ñuy jaar ñu teewlu ay kàddoom ak Ibou Diouf projet wane na lenn mooy Sénégal initiative yi pour l'habitat social am na fi macha allah li manqué woon mooy trait bi nga xam dañ ko war a créer pour permettre aux populations ñi nekk fi ak bitim réew gis ne am na des possibilités les possibilités sont là loolu nag la GFM entertainment ak Dieynaba Seydou Ba réussir tey vraiment euh, kontaan naa trop on voit que les yi ci seen wàllu bopp am nañu initiative yu bare bare bare bare ci affaire habitat kon nag ñi ngi invité sénégalais yi képp ku xam ne sénégalais li mu gën a bëgg moom mooy am këri boppam kon nag les possibilités la là GFM mi ngi fii pour yombale leen ko pour def lépp ba nga xamee ni que ñëpp dinañu mën a gisee ñëpp dinañu mën a xam lu sa morom di def pour mën a réaliser mi ngi noonu kon muy salon de l'habitat door ni kii tey jii euh, ci diirub ñetti fan nag la ñu koy amal euh, fële ca place de l'indépendance mbokk yi fii la ñuy tàggatoo ak yéen jaajëfal leen yéen ñi farewoon ci machine ba ñi jàpp ci xibaar yi mu sotti euh, ci kanam tuuti Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew xibaar yi ci nasaraan lay doon jërë ngeen jëf.